ci côté bu ne wax na ci mille milliards yi ne loolu mënut a nekk euh, démentir Ousmane Sonko ñëwaat ci coowalum dundin geeg dund bi ne nañu yoree réew mi it dara neexu ci dara baaxu ci dellu si waat ci euh, li nga xam ne mooy euh, vision horizon 2050 daal ne dañ ko plagiat dañ ko copier coller ko ak li nga xamante ni mooy PSE waaw merci beaucoup ci question bi oui. donc waaw fi may commencer mooy la forme la forme de la lettre qu'il a écrite mm-hmm. su ma duggee ci forme bi li may njëkk wax mooy. oui Macky lettre bi mu ñu won ressemble à une œuvre poétique la poésie. poésie poésie la Macky Sall moom la ñu présenté tey. une mhm. jàngat naa ko moom laa doon jéem a jàngat nii. Mhm. Euh, tey boo xoolee bu baax boo jàngatee lettre bi boo xoolee par rapport ak form bi. li ngay gis. du leen lu dul benn. Mhm. benn. du lettre de du lettre ngay gis. comprendre poème boo xam ne dafa am comme fonction fonction lyrique le lyrisme l'expression des sentiments personnels. loolu ngay gis tey si biir poème bi. Mhm. boo ko jàngatee bu baax. Mhm. da ngay gis ne dafa utiliser benn figure de style bu ñu wooyee lana mhm. l'anaphore l'anaphore anaphore bi mu ngi nekk fan. j'ai laissé un pays apaisé j'ai laissé un pays dans la gouvernance j'ai laissé un pays dans fonction publique j'ai laissé j'ai laissé loolu la ñuy wooyee l'anaphore. maanaam bàyyi na ci dëkk bi dëkk bu naat. waaw l'anaphore bi xam ne moom na ko utili moom la utiliser maanaam j'ai laissé j'ai laissé j'ai laissé. Mhm. expression et sentiment personnel bi avec The mm-hmm. pour wane ne li muy wax moom la moom moo ko dund mm-hmm. wala moom la concerné par rapport ak parole yi ci kan la jóge mm-hmm. mais Macky Sall fii dafay igoo igoolu dafa dafay mm. parce que bi mu demee foofu bi mu exile woo comme ni ko ni ko capo caporal waxee foofu am na amoon na temps pour jàng la littérature Hmm. pour mën a convaincre les sénégalais. Hmm. xam nga ñëpp xam nañ ne moom scientifique la daanaka. Hmm. donc aayul woon ci littérature. mais amoon na temps pour jàng la littérature di Hugo Hugolu pour mën a convaincre les sénégalais loo tax mu utiliser forme bi ba pare dugal ci anaphore. anaphore boobu day tax sénégalais yi buñ koy lire ñu bàyyi xel ci li muy wax est-ce que yaa ngi fi mu bu baax bu baax mais. dafa am lu mu fàtte. lu mu fàtte. dafa fàtte ne engagement la waroon a jiital xam nga lii. Mhm. œuvre lyrique la. maanaam tey jii da ngay jàpp ne poème boo xam ne lyrisme lañ utiliser mais mënoon na ñëw ci fonction engagée. Mhm. comme day Hugo Hugo mënoon na ñëw ci Victor Hugo carrément. Mhm. avec les rayons et les ombres. en 1840. mënoon na wax ci loolu. fi Victor Hugo doon waxee lii. waaw. chaque Dieu Dieu Dieu le veut dans les temps contraires chacun travaille et chacun sert malheur à qui dit à ses frères je retourne dans le désert malheur à qui prend ses sandales quand les haines et les scandales le peuple agité Macky Sall foofu la waroon a xalaatee. Hmm. parce qu'il a quitté le navire en pleine tempête. d'accord bi dëkk bi bi mu fi bàyyee. dëkk mhm. bi. Mhm. trouble yu am fépp moment bi mu bàyyee dëkk bi ay problème moment bi mu bàyyee dëkk bi ñu sàcc xaalis bi ba dëkk bi ndool moment boobu la quitté le navire dem exilé wu. Mhm. bàyyi fi problème yi dul jeex. oui toog fa pendant huit mois tegul tànkam senegal lijjantewul woon Sénégal comme tey élection am na. oui yi mu gis. mu xam ne su nekkul tête de liste ne serait pour sa défendre boobaa dinañ ko entendre te buñ ko entendre dinañ ko emprisonner loolu lay éviter mais amul fu mën a jaar pour convaincre les Sénégalais. D'accord. Pour lui, la meilleure façon à utiliser pour mmh. pouvoir regagner la confiance de Sénégalais, c'est à travers la plume. Mm-hmm. à travers la plume boobu dina mën a roy ku mel ni Victor Hugo mi xam ne ñëpp ñoo ko nawoon surtout ba muy wax Demain dès l'aube surtout bi muy exprimé wu par rapport à la perte brutale de sa fille Léopoldine qui s'est noyée. Mm-hmm. foofu ñun ñëpp amoon nañ yërmande ci Victor Hugo. léegi tey Macky Sall comme quitté na réew mi. Mm-hmm. comme quitté réew mi ba gis ne dinañ war nañ ko mën a entendre te buñ ko entendre dañ liñ koy toppee du lenn du dul haute trahison te mën nañ ko jàpp léegi faaw mu lamenté wu faaw mu yërëmtalu da ciy profiter pour présenter un bilan boo lire lettre bi di nga gis ne Macky Sall dañuy présenter bilan. Mhm. li mu njëkk mu ngi wax réalisation. réalisation yi wax réalisation yi xam ne jot na ko def comprendre nga. Mhm. bi mu jógee si réalisation yi xam ne jot na ko def wax ni état bi fi nekk jamono jii. li mhm. ko Sénégal doon xaar defuñu ko. di wax ne état bi fi nekk jamono ji am na lu ñu digoon Sénégalais yi mais bi ñëwee defuñu ko waaye boo leen amaatee ci man confiance ba jox ñu assemblée nationale dinañ ko mën a yor parce que am na projet bu ñuy tegal am na programme ñuy tegal te programme yi set la. Mm-hmm. li ma jaaxal ci programme bi wala li war a mën a jaaxal Sénégalais yi ci programme bi. mooy programme bi li mu ci wax yépp nee na. bu buñ ko ko joxee si trois mois mën mois mën na ko gérer. alors que douze ans lañ ko joxoon. Mm-hmm. tey jii lu mu laaj ne trois mois comme li Amadou Ba waxoon ne suñ leen joxee assemblée nationale trois mois. Mm-hmm. ñu wàññi dund mm-hmm. trois mois ñu wàññi dund gi alors que joxoon nañ leen douze ans tey Macky Sall mi xam ne moom moo jiite woon Sénégal pendant douze ans moom mooy laaj yeneen trois mois pour surtout si wàllum. emploi des jeunes surtout si wàllum formation professionnelle mm-hmm. surtout si wàllum développement de manière générale mm-hmm. Macky Sall nee na moom dinañu ñëw dimbali ci loolu pour mu mën a ànd te Macky moom lañ joxoon douze ans mm-hmm. léegi nag pour mu mën a convaincre Sénégalais yi fallait mu jël temps am xalaat loolu tax mu jël temps bu bari ah. li tax mu ne mënul woon ñëw wala ñëwam nekkul ordre boobu yëpp mu ngi bind mu ngi xalaat di bind léegi bind gi mu doon bind nag forme bi mu ko mën a utiliser. Mhm. pour sénégalais yi mën ko yërëm. pour sénégalais yi mën a jàpp ne Macky mii de comme jot na fi def réalisation yu toll nii suñ ko indiwaatee amaana liñ bëgg mën nañ ko am. Mhm. yàlla dogal nag sénégalais yi fi mu ne dañoo gën a intelligent dañoo gën a mûr xam nañ ne lii lépp ay dóor martu la. Mhm. xam nañ la raison pour laquelle Macky Sall bëgg ñëwaat en tant que tête de liste. xam nañ la raison pour laquelle maanaam Macky Sall mi nekkoon président de la République Sénégal Macky Sall mi xam ne nekkoon na président n'est-ce pas de l'Assemblée national Macky Sall mi xam ne nekkoon na premier ministre. Mm-hmm. Macky Sall moom moo bëgg nekk député tey. wala député gi mu bëgg doon. Mm-hmm. après bëgg ci leen du nekk premier ministre. parce que dañ bëgg moom assemblée national après xam ne ñoom ñooy doxal du ko moom mën na nekk premier ministre alors que loolu mën mënta nekk Sénégal li mu bëgg noonu ci boppam mënul nekk. dégg naa ko wala gis naa ne weddi na li ñuy wooyee mill milliards yi Macky Sall bu weddee mille milliards yi su ko neexee mu joxe xalaatam ci loolu mais Macky Sall moo la gën a xam ne loolu lu mën a nekk la parce que bu ñu fàtte ne Macky Sall ancien président de la république la xam na réew mi ni muy fonctionner xam na développement ni muy fonctionner mais aussi xam na économie muy fonctionner tey jii moom moo la gën a xam kan mooy Mobutu Mobutu Hmm. mi nekkoon président de la république foofu sa Zaïre hmm. mu quitté pouvoir bi en 1997. oui bi ñu demee Suisse trouvé fa ne kii am na fa compte boo xam amoon na presque quatre mille sept cent soixante douze milliards. ci hmm. benn compte lañ trouvé lool kon Macky la moom moo la gën a xam ne am nañ possibilité mën nañ trouvé benn ci benn compte boo xam ne dafa nekk à l'extérieur bu am plus de ma la 1000 milliards mais plus de 1000 milliards. léegi lan moo tax mu ne mënul nekk te amul loolu. pour manipuler pour pouvoir convaincre les sénégalais lii xam nga la la ko littérature di wax di philosophie xam nga lan la ko waxee philosophie. Mhm. l'art de mentir pour pouvoir avoir raison. Mhm. mooy l'art de parler. mentir pour pouvoir avoir raison maanaam wax loo xam ne amul waaye li nga ci jublu mooy am raison mentir mais mentir vrai. lii Macky Sall di def nii nekkul lenn lu dul. Mhm. pour sénégalais yi koy liir pour am benn poids boo xam ne dinañ ko wàññi si président Ousmane Sonko pour mën ko votel parce que dañ naan comme Macky Sall mi ñu doon xaar ñëw na weddi ne lii amul kon amul parce que moom moo nekkoon président de la république weddi rek la mën a def parce que bu nangoo ne am na moom responsabilité am day nekk ci biir parce que moom moo jiite woon réew mi kon mënul wax lenn lu dul amul c'est compréhensible comprendre nañ. mën wax leneen lu loolu mais sénégalais xam la lañ war a xam. Hmm. tey jii am na suñu kilifa yoo xam ne mënuñu liir jànguñu français. waaw lettre bi Macky Sall bind mënuñu ko liir hmm. mais na ñëpp sénégalais yëpp xam lan moo tax Macky Sall bind ñu lettre bi li tax mu bind ñu ko mooy dafa bëgg ñëpp ñu bàyyi ko xel pour mën ko voter en tant que tête de liste parce que comme xam na ne campagne bi sur WhatsApp doxul. campagne bi sur TikTok doxul parce que essayé na mu ngi ciy convaincre essayé na mais <laughs> il ne parvient même pas à convaincre les Sénégalais à travers WhatsApp ou bien à travers TikTok moom ci convaincre les Sénégalais. Hmm. donc mu ne fa mu beneen stratégie stratégie bi mu wut mooy cette lettre. lettre bii nii nii nii la envoyé Sénégalais pour Sénégalais yi bàyyi xel ne Macky Sall malgré ñëwul de battre campagne mais aussi programme mu ngi nii. Mhm. moom programme mu nekk une première fois ñu envoyé ñu programme boo xam ne si lettre la nekk pour ñun ñu mën a lire parce que sept sept points yi mu teg noonu mooy seen programme. Mhm. moom la Macky Sall wéyale pour ñu bàyyi ci xel te sept points yooyu yëpp pendant douze ans mënoon na ko développer Sénégal. Mhm. sept yooyu yëpp pendant douze ans mënoon na si sukkandiku pour Sénégal nekk pays un pays émergent. parce que moo fi indi woon PSE. PSE boobu mujjul doon. plan boo xam ne dinañ mën a tax Sénégal nekk un pays émergent. Mm-hmm. comprendre kon tey jii. xam nga euh, la la raison pour la laquelle raison bi gën a mag la raison mère maanaam raison bi gën a mag pour mu envoyé ñu lettre bi xam nga la. Mm. mooy li muy wut mooy pour ñu bañ ko àttee foofu ci haute cour de justice loolu rek la. Mm-hmm. Sénégal ñoru ko lettre bi du daf ñu ko envoyé parce que Sénégal da ko ñor envoyé wu ñu ko parce que dafa bëgg Sénégal li muy wax réconciliation dëkk bi jàmm moo fi am jamono ji jàmm moo am ci dëkk bi li muy wax ci inondation yi ñoom tegoon nañ fi tant de milliards pour inondation yi ñu lekk milliards yooyu yëpp defuñu dara si inondation yi comprendre nga lii dafa bëgg profiter de l'aubaine li muy profiter de l'aubaine mooy li xew Bakel mu politiser waale ko comprendre nga liñ doon wax ci diggante Casamance ñu politiser waale ko pour mën fa jaaraale wax ak sénégalais yi te loolu mënul jàll manipulation boobu mënul jàll dañ ko Macky tey réew mi fi mu toll boo demee si ministère yépp dañoo sàcc xaalis te sa njaboot ñoo sàcc xaalis bi yóbbaale ko. Mhm. loolu lañ wax. Macky Sall weddi na de weddi mille milliards yi de mais ba léegi tegul chiffre li mooy wane littérature bi ma la doon wax ne moom lay def mooy littérature. alors que dañ bëgg des preuves scientifiques te preuves tangibles pour nga mën ñu convaincre mais pas le verbe le facile. maanaam tey nga def benn littérature comme ça c'est facile weddi pour weddi mais weddi woo pour teg lu palpable boo liiree lettre bi ba mu jeex doo gis chiffre boo xam ne Macky Sall daf koy joxe mu nekk chiffre boo xam ne chiffre bu vrai la. Mhm. maquillage des chiffres. moom moo ko orchestré en tant que président de la république. Mhm. parce que moom am na accès au dossier gis na lépp xam na ne li ñuy présenté moo xam euh, déficit budgétaire bi moo xam li ñuy woy dette publique bi lépp Macky Sall xam na ne li ñu présenté du loolu moo am. en mhm. réalité. Mhm. mensonge mënta weesu keroog président conseil constitutionnel Badio Camara dem ba France xamal leen ne Macky Sall bind na leen pour mën a def troisième mandat ñu ne ko du ci dal loolu waxuñu ko. tey comme li mo scandale yi am ci fonction publique Sénégal yëpp yëg nañ ko loolu waxuñu ko nëbb nañu ko ministère n'est-ce pas euh, des sports mu am budget boo xam ne pour année bi yëpp la ñoom ñu lekk ko ci trois mois Macky Sall waxuñu woon loolu. boo nemee si ministère n'est-ce pas de la santé foofu amoon na benn scandale boo xam ne plus de soixante onze milliards ñu def ko marché gré à gré amul appel d'offre Macky waxuñu ko woon. tey jii boo ñëwee boo demaatee tey feneen rapport bi IGF génne woon keroog par rapport ak milliards yooyu noonu xam ne euh, ñoom njabootam gi ñoo ko doon utiliser maanaam ci à travers des marchés gré à gré. Mm-hmm. Macky Sall waxuñu ko woon. Mm-hmm. boo demee si ministère n'est-ce pas de l'enseignement supérieur tey ji ñu ngi ameel ku ci mel ni Ecobank ay milliards 40 milliards. xaalis boo xam ne daanaka ci année bi la waroon doon. Mhm. ñoom ñu lekk si 3 mois. Mhm. boo demee ci euh, repreneur réseau yi ñu ngi leen amal 20 milliards. 20 mhm. milliards yooyu noonu Macky Sall waxuñu ko. boo demee ci Sonatel ñu ngi leen amal 1 milliard cinq millions Macky Sall bi muy dem waxuñu ko. Macky Sall ci boppam. ak njabootam. lekk nañ suñu alal yëpp yóbbaale ko est-ce que mentionné mentionné na ko si livre ci lettre bi. defu ko. Macky Sall ji ji mu def yëpp jaay suñu réew mi. prison bi mu jaayoon bi tudd rëbës est-ce que Macky Sall mentionné woon na ko ci lettre defu ko il n'a fait que de la littérature pour pouvoir convaincre les Sénégalais te lii du marché manipulation bii du jàll te Sénégalais jamono ji comprend ne parce que intellectuel yëpp liir nañ ko gis nañ ne kii saawaay mi day naxaate parce que gisoon nañ ko temps yi ci Amadou Ba bi ko président Ousmane Sonko interpellé par rapport au maquillage des chiffres Amadou Ba à la provocation en faisant de la littérature ba léegi génnu chiffre waat na ko ci débat wax chiffre mu woote ci débat désorienté débat euh, kii bi débat bi ko président Ousmane Sonko woo donc ñoom système boobu ñun comprendre nañ li ñuy doxee xam nañ ne jamono jii nii fi mu ne haute cour de justice bi moo leen tiital tiital gi mu leen tiital moo tax tey ñi ñu bëgg ñu votel leen pour ñu mën a moom assemblée nationale mais c'est impossible mënul ne. assemblée nationale duñ fa am dara te dinañ leen entendre Macky Sall dafa tiit beneen tiit. beneen tiit ban. xam nga ne tey jii le 6. Hmm. le la France waroon na xool procédure pour crime contre l'humanité bi Juan Branco maître Juan Branco bi mu déposé déposé woon tey la France tey lañ ko waroon a saytu. Hmm. moo tax ma ne timing bi c'est important timing bi pourquoi tey pourquoi lettre bi war a ñëw tey. parce que président boobu muy Macky Sall xamoon na ne tey la procédure mu war a commencer foofu ca France par rapport ak crime contre l'humanité bi xam ne plainte boobu Juan Branco moo ko defoon yéen a ngi fàttaliku bu baax. Mhm. bi Juan Branco doon saisir CPI. bi muy saisir CPI loolu nag moo war a commencer loolu tax Macky Sall instant yi dafa tiit tiit gi mu tiit nag moo tax daf ko obligé mu def lu mu bëggul woon a def muy la muy la littérature. mën ñu convaincre pour ñu mën a basé wu pour ñu mën a fàttalal pour ñu mën ko pardonner aussi te loolu jamono ji mënu ne il va répondre de ses actes merci beaucoup. incha am na solo bu baax.